Uras Info. Ribari Gao. Tewor. Uras Info. L'info à temps réel. Uras Info. Django du te Notre force. Le traitement de l'info. إن قد ملأ أنبيائي فاق أرسال أنبيائي dellu koo si fa faydu ba tàkkee xel fa koo nangu su ko bàyyi ña santaane nag fay mujj nekk waru gar ci bépp taalibe ba tax surgam ba xaadimu saaxibul fayda atijaniya abdu madharu zaati di cheikh Baye Mamoun Ibrahima Niass woote bés bu mag journée internationale dellu koo si bëgg bàyyi liggéeyal bàyyi سمت بايميس اليوم العالمي للعودة إلى كوسي محبة وخدمة وشكرا لشيخ إبراهيم أنيس رضي الله عنه جورن انترناسيونال ديلو كوسي بغ باي لغيال باي سمت بايميس ل 23 ديسمبر 2023 تكوسي باي بس لبو خمنا بايميس تبقم مو سنتاني وون جرمي ديلو كوسي نجدلو كادومي ndigal ginnaaw bu mu waxee ne raaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam jaani wa ana fii koosi ba wax ja jeex ba tax bàyyi ma mu ñees dellu koosi ba pare nag di woo taalibe yi muxaddam yi njaboot gi le 23 décembre bés bu mag ci diine ji bés bu màgg ci xadara bi ñépp di ko fuglu koosi bàyyi kenn du fa xaj mbooloo mu bari bay rëj-rëjloo Sénégal ba bitim réew ndax bésu yokkute la kenn warta am ngànt képp ku jàpp ci bés bi nag na la wóor ne yaa ngi xidmaal Baay Ñas te fa wax ne képp ku ko xidmaal fa ngay jot sa càkkutéef programme ba fa ñuy xëy jàng al alquran set setal dëkk ba amal exposition ba pare visiter barab yu sell ya cérémonie officielle ba 15 heures 30 17 heures toftal ca conférence Cheikh Abdoul Baqi Cheikh Hassan Dem boroom xam-xam bu mag ba fa saxa boole ca moo koy amal thème ba muy waxtaanee mooy na Baay Ñas daan dundee ca Koosi taalibe yi mën cee jàngee fañ fay xamal guddig zikar mbooleem zakiru arabi ñang leen cey o Cheikh Ibrahima Ndaw moo ca jiitu aw sa yeeg naar yi ñëppay ñëw gàmmu ga 21 heure lay tàmbali ñu toftalaat ca zikkar 1 heure du matin ci la yi waxtaan wu mag ka koy animé mooy xaadimu saaxibul fayda Cheikh Ibrahima Mamoun yes ñu gën ko xam ci Baye Mamoun ay ndaw waxtaan wu nar a neex fay ànd ak xaal ànd ak xam-xam bés ba nag mi ngi am ci ndigalu khalifa Cheikh Mouhamadul Mahish Cheikh Mouhamadul Mahish Cheikh Ibrahima Niass xaadimul umma sous le au patronage fañ ko dara jaalee kànga mu faydu bi mooy sëriñ Aliou Cissé sëriñ Mbaye Niass sëriñ Baye Ma Abdou Niang sëriñ Ibra Fall cheikh Mouhamad Ould Nahwi Mauritanie cheikh Hadi Ould Seydi Mauritanie Cheikhaani mën na Abba Mauritanie cheikh Mouhamadul Misri Mauritanie fañ cay rendre hommage cheikh Arabi Ibrahima Niass cheikh Abdoulahi Ibrahima Niass cheikh Mansour Mamoun Ibrahima Niass maam Abdou Mati Thiam koo si mbitéyeen asayida Zahra bintu cheikh Ibrahima Niass asayida Khadi Fati Ibrahima Niass bintu cheikh Ibrahima Niass Niass ummul fayda asayida Mariam bint Cheikh Ibrahima Niass xaadimatul Qur'an asayida ummu Kalsum Ibrahima Niass Cheikh Baye Mamoun Ibrahima Niass gàcce ngalaama xaw nga tànki waajur ya de wàccoo sa xand fa bëgg Baye jeex ci moom tàkképp ku koy nax ci Baye Niass ngay jaar fa baax fa tabe lu mu xam joxe ko nit ku xam njëriñ ku laa biir faa lay xamal lenn taalibe yi fañ lay safoo xadara bi fa lay sagoo diina ji di la tiitaroo ayyadaka allahu wa nasarak min habibi Uras Info Ribari Gao Uras Info l'info à temps réel Uras Info jàngat du notre force le traitement de l'info